وحطنا وحطنا من حماتنا واجعل حرمنا حرمنا منا واجعل حرمنا حرمنا منا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجعل حرمنا حرمنا منا وكن بحفظه كفيلا ضامنا يا الله يا حفيظ يا ذا الامر يا فائق الخلق معا بالقاري نفسي وديني ثم اهلي والولد ومسكني لك وديعة النبي وهكذا دنيا مع أخرايا ففيما عصر من الرزايا ففيما عن نصري في الرزايا اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الخير الصب السلام عليكم ورحمة الله سنو مبوكي نيوانجي نيو نيب نيوانجي نيان يالا تجل جلدي دي نتو بي جلي كوتي أدنا سيبت جا أندي لاد نيو خيوال أغنى تانجي دفا أملو أم صلو لو خمنتني أمنا جوغي جي سنو مبوك سنو ca Mauritanie bokk ci xeet wu ñuy wax alxasani yoon ku ne xam na ne Serigne Touba day digganteem ak waa Mauritanie dëgër na lool ba ñu bari ci boroom xam-xam yi ak seetlukat yi sax jàpp ne Mauritaniens yi fiñ ko teg ak niñ ko fonke gëmuñ ne kenn fonke na ko ni ci àdduna alxasani yoon yooyu nga xam ne ñoo ak Serigne Touba yàgg nañ lool. seen kolleel googu ñu koy wéyal ci njabootu sëriñ touba gi ba ci suñ sëriñ bu baax bii fi nekk Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal lool ca dëgëral ko kolleel wéy di wéy alxasan yi yoon yi di famille bu yaatu sëriñ touba seexal ci ñu bari Cheikh Ahmadou yahya ak lim bu bare bare ñoo xam ne tey ku ko doon lim da nga doo jeexal ñu ci bari way seen touba ci ñoom Mouhamad Naan ibnul muallah Mouhamed Fallou Ndaay Nayn ak famille ahl alamin gépp nga xam ne bari nañ mën nañ juróom nangami nit ñu seq ak sëñ bi yu bari bari am na ci ñoom sax ñoo xam ne biñ faatoo fii leen sëñ bi fii lañ faatoo ci sëñ bi ñenn ña nga ñu wetu sëñ bi denc leen fa ñenn ñi mu indi leen fii ci armée li Mbàkke yi armée li ñuy wax armée li ñoom yàgg nañoo ak sëñ Tuubaa doy na sëkk rek am na kenn ci ñoom ku ne woon sëñ Tuubaa isa xasani yun am may am ma yow man bi baabikum ذهب أنه عما سوى الله قانع الشيخ الخديم نلو ورني أب حسني يدف بتخوي سبنت بي نلو ورني يلا دون موقف أندي وهي كان نتي نيوم مستنيو تسنج بي نجير ووت يفي أدن ولا يمال نانو نيو جاين تنج موم ونجير ووت تي موم تي عبرقلا سنج بي فنكون لين لول دوخ سين ديجن دي كورونا دو جيخ نيوم خيد وو نك تاي نيو أندن دو دي تالبي سرين توبا جس في أدن شتولو مو نجاخ لكي لول ديجو كفونه dégg ko ci dégg dëgg dëkk yu mag yu tedd yi mu fu mel ni Makka ak Madina dégg ko ci dëkk bii nga xamante ni it mooy Touba ca muy gënal leen fépp ñoom mooy dëkkub Cheikhul Khadim suñu dëkkub sëriñ ñoom ñu àndandoo ne dañuy dem Sarsara béréb bi nga xam ne fa la sëñ Touba nekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko fa mu ñu tawasul ci Cheikhul Khadim te suuf soosee nga xam ne daana fa joggi tànkam ya ca teenam yooyee mu doon wax inna lazina inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraqu daareeni aw saara aw zaara ca foofee mu ne woon xam wa shukri li man kulli bihi saara lahu ridan duuna suxti ànd sarsaara suuf suuf sarsaara soosee ak li muy àlle àlle di fu sori nga xam ne dara néew fa lu tawax jàkka ju àggagut ju fa bokki taal bi def akub teen teen ba nga xam ne day ca mooy fàttali teen ba fa sëñ ba nekkoon waaye nag suuf su sëñ Tuubaa nekkoon la ñoom ñoo àndoon ne danañ fa dem bu ñu demee ñaan yàlla ci jëm barkeb cheikhul khadim ci suusu tedd soosa yàlla teggil julit yi balaa mi ak mbas mi loolu nag lañ def muy lu am solo lool dëgg-dëgg biñ noppee lañ ma ko yónnee sama yaram daw lool bi ma ko gisee ma ne leen lii day sëñ bi nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp dana ko dégg waaye it mbokki yëpp danañ ko dégg ndax ñu wax amin ci ñaan gi nga xam ne ki ko doon jiite mooy seen kilifa ñoom muy cheikh Hamid wala ibnu Ishaq al Hasani cheikh Hamid ku ko xamut xam xamal ne ci sëriñi murid yi gën a mag yi nekk Mauritanie ci la bokk ci alxasan yuni sëriñ saaliwu la jaayanteeloon bu yàgg sëriñ saaliwu bokkoon ci ñi ko taqdimoon mooy joxoon ko ndigal ci muy joxe wërdu wi nekk kilifa ginnaaw bi nag ku ne xam na ne ay taxawaayam rafet na ak xalifa yi fi nekk yëpp ba ci sëñ sëñ Muntaxa mi moo jiite ziyaari boobu ñaan googu moo ko doon ñaan lii nag nañ ci roy ñun ñëpp ca xam ne balaa ak musiba bu amee liñ war a góorgóorloo ñun ñëpp rek mooy fexe nu mu tegg nu mu teggi koo ci ñun lu ba di gis-gis bu am solo suñ mbokk yu baax yi di ay borom xam-xam di ay taalibe sëñ Tuubaa def tey moo tax kon ñu fas yéene ko tasaar ngir bëgg ñëpp gis ko ngir mën a roy ci ñoom ca ñaanal suñ mbokki taalibe yooyu bu baax a baax muy alxasan yu yoon yi ak mboolem mbokki taalibe yi ya fa nekk yëpp ak mboolem jullit yi nekk ci réew moom nga xam ne mooy réew Murtani ñu ñaanale waa Sénégal gi ca ñaanal waa àdduna si yëpp jërë ngeen jëf